tiisul tiisul ñu bett sax dëgg yàlla xëy na feebar bi yàgg na nag waaye yaakaaroon nañ ko daal man du ma ne sama mag sax sama papa laay wax ndax man sama papa daal teel a gaañu moom moo ma yar kon man sama papa la man rek lañ am si jigéen mu nekkoon na soutien de famille bu tabaxul ay étage ñun ñoo tax ak mbokkam dekkul dara bàyyi kenn tur yi nag toll na noo xamante ne moom li mu yor tollu noonu ndax ay mbokkam ak ay njabootam waaye nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla na sëñ Abdou Khadre mi mu yaakaaroon waaw ndax mu fay fekk ay waajuram te nag li mu defoon si njabootam yi ak ak ak raqam yeeg magam yi ak raqam yi sax laa wax ndax amul mag yàlla dina ko ko fay te bu demee si yaayam di sëgg ak baayam di sëgg de day jàkkaarloo ñoom di sëgg benn yoon am nañu naqar nag waaye sant yàlla alhamdulilah. macha allah benn benn benn la nag waaye njaboot na macha allah njaboot na ndax na am am na ay doom tolloog fu ñu bay xool ay doom daal doom nañu fukki doom macha allah njaboot la woon na yàlla weddi kooku gaañu amaat keneen mu ngay am ay njaboot yu sew mais nag sant yàlla daal yal na yàlla teg loxo si njabootam te ci fajar waaw ci fajar man. ñaata la amoon 46 46 la judd. 46 la judd waaw. moo doon suñu taaw. ok euh, gisoon nañ ne euh, la lutte maanaam kiy bëre. Mhm. nekkoon waaw jaar na armée mu mhm. euh, mhm. ah, boobu boobu laa nag wax dëgg yàlla. ndax maay caat boobu tuuti laa am na lu bari xaw ma ko ci ci armée daal. waaye nekk nam daal ak njabootam daal moom xam naa ko mais armée jotuma kenn xam dara. uuf ñëpp uuf ñëpp nekk taaw ne moo remplacé papa uuf ñëpp na wax dëgg yàlla kenn jooyul dara lu mu am bokk koog njabootam ak ñi ci biti Fass Mbao gi yëpp benn kàddu moo fi daw ña ndax ñu dëkkoon Fass ñoo dëkk Fass Mbao te ñëpp benn kàddu bi la ñuy sant yàlla nag ñaan nag yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam waaw dëgg yàlla a dóor doom raqi waxi noppi boo dóoree xale sax da lay kenn du laal kenn moom sama yaay da ko daan wax na da ngay yàq xale yaa ji ya war a yar mais doo kenn du yar ndax yow waaw wax dëgg yàlla ku lewetoon bëgg njabootam wax dëgg